bu ñu yàlla boole nee na li ma làmb yàlla ñu ko yàlla boole ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bés bi nag nii rek la mën a mel. bëgg a am li Baye Cheikh am. nee na ku bëgg a am li Baye Cheikh am. da ngay fexe ba sa jikko. da ngay fexe ba sa jikko. dëppoo jikkooy Baye Cheikh. dëppoo nag ak jikkooy Baye Cheikh. Baye Cheikh jikkoom. Baye Cheikh jikkoom. dafa dëppoo ak jikko yonent bi. dafa dëppoo ak jikko yonent bi. te man. nee na man. su ma fenee. su ma waxee leneen. yàlla dana ma alak. yàlla daf may alak. moo tax dëgg rek laa ma wax. moo tax dëgg rek laay wax. li ma bàyyi fii. nee na li ma bàyyi fii. bu dul jikkoom. bu dul jikkoom. ma toog sama daara. ma toog sama daara. lépp lépp di ma fa fekk. lépp nag di ma fa fekk. dama tàllal kenn loxo. dama tàllal kenn loxo. Baye Cheikh nag. Baye Cheikh nag. danoo yëgoon. danoo ëmb nu. Baye Cheikh dañoo ëmboon. mat bu kilifa. Baye Cheikh daf ñoo matul kilifa. ñun bu ñu jaaxlee. nee na waxuma nag bu ñu jaaxlee. waaye suñuy àndandoo ak suñuy. waaye suñu àndandoo ak suñuy wëllëre ak suñuy taalibe. ak ku ci am problème. ku ci am problème. nga ñëw ci Baye Cheikh. da ngay ñëw ci Baye Cheikh. mu téléphoné. mu mu jóg. mbaa mu jóg ànd ak yow. ànd ak yow ba loola leer. ma sañ. nee na ma sañ. di góorgóorlu di góorgóorlu ba tabax fa daara ba tabax fa daara di góorgóorlu di ba tabax fa jumaa ba tabax fa jumaa am ñu ni warul am ñu ni warul ma di ko ubbi ma di ko ubbi nag ñëwuñu ñëwuñu waaye ay taalibe waaye ay taalibe akub tariixa akub tariixa ak i bokk ak i bokk lu mën a xew lu mën a xew rek bi Baye Abdourahim ñëwee ci bis bi. bi yëg nañu xalifa xalifa bi ñëw noonu. looloo tax. looloo tax nag. su ma masaa xewle. su ma masaa xewle. day ñëw. dafay ñëw. yëkkati enveloppe jox ma. day yëkkati enveloppe jox ma. waxtaanal ma. waxtaanal ma. waxtaan wu yaatu. waaye waxtaan wu yaatu. woo xam ni sax du ko wax fenn. encouragé ma. encouragé ma nag. Baye Cheikh. Baye Cheikh. yàlla yokk ay leeram. yal yàlla yokk ay leeram moom Baye Cheikh. cërë nag. nee na Thierno a nag. lii yàgg na leen a dal. lii yàgg na leen a dal. nekk ak nitu yàlla. nekk ak nitu yàlla. gis ko mu woyof. gis ko mu woyof rek. di nëbbutoo woyof. di nëbbutoo woyof rek. di làqatoo woyof. di làqatoo ak woyof rek. fekk xul zamaan la. fekk xul bu zamaan la. nga di ko fi wàcc. nga di ko fi wàcc nag. di ko doyalal. di ko di toog ci grand place yi. di toog jëw. di jëw. di wax lu ne. di wax leneen. waaye nag. Ah, waaye nag. Baye Cheikh Kero ba mu ba mu wàccee liggéey. Baye Cheikh Kero ba mu wàccee liggéey. ku ko xamuloon ku ko xamuloon rek. xam nga ko xam nga ko nag. ndax kenn yéene wu ko. ndax kenn yéene wu ko. dem gi bette. dem gi bette lool. sedd lool sedd lool nag. moo tax moo tax. fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu am na ko wax wax bu am solo nee na am na ko wax wax bu am solo léegi ni Serigne Modou muy Serigne Modou ni Serigne Gora ni Serigne Gora ni Serigne euh, Taala ni Serigne Taala ni Serigne Maxtaar ni Serigne Jaga Maxtaar seen baay seen baay ak xilaafaam xilaafaam mosu leen a xëccoo dara mosu leen a xëccoo dara mosu leen a bëggoon a feeñ ci dara mosu leen a waaye tey yàlla feeñal na leen waaye tey yàlla feeñal rek man du ma ànd ak ku dul dem. man du ma ànd ak ku dul dem. billahi wallahi taala. nee na billahi wallahi taala. njabootu Baye Cheikh gii. njabootu Baye Cheikh gii. képp. képp ca kaw rek. kaw rek. maa la wax loolu. nee na maa la ko wax. fu wér laa ko teg. fu wér nag laa ko teg. bi seen bàyyi nee xalifa. bi seen bàyyi nekkee xalifa. kenn jéppiwu leen. kenn bi jéppiwu leen. xëccoowu leen dara. xëccoowu leen dara. nëbbu leen seen bàyyi. nëbbu leen seen bàyyi. su xëyee. bu xëyee. ci banque bi laay toog ci buntu kër gi lay toog ci buntu kër gi. ne fang. ne fang ku ko soxla. ku ko soxla seen yoon nekku ci. seen yoon nekku ci yéen. góor gaa ngi demal góor gaa ngi nii demal rek. buy jóg di xett li ji kenn. buy jóg di xett li ji kenn. du ngeen ci ànd sax. du ngeen ci sax nekk di wax di ànd. yàlla yàlla sàmm leen. yàlla na leen yàlla sàmm. yàlla na yàlla aar leen. yàlla na leen yàlla aar. man bu bon mii. nee na man mii nga xam ne fa tabaarakallahu. bi ngeen gisul seen bàyyi. bi ngeen gisul seen waajur góor da ngeen maa wax ni ma. wax ni ma. nit du dund te amul kilifa. nit du dund mukk te amul kilifa. yaay sunu mbaay Cheikh yow mii yaay sunu mbaay Cheikh. yaay sunu sëriñ yow mii man de wér na ma ni. te man na ma ki ci gën a tuuti. ki ci gën a tuuti. moo ma gën. man du ma gën a baax. man xam naa loolu. xam na ko. ngeen a baax rek. da ngeen baax man. loolu moo tax nag loolu moo tax ma sasu ci ma sasu ci nag di leen wéttali di leen wéttali di leen surveiller di leen surveiller bañ ko tantee keroog bañ ko tantee am naa ci juróom benn waxtu am naa ci juróom benn di ñaan jàmm rek di ñaan jàmm rek nag bu mu xëyee taw bu mu xëyee ma ree am na ñoo xam ñu ngi naan ñoo xam ne ña naan ndok ndok ndax kenn bañ a ñëw ndax kenn bañ waaye taw bi waaye taw bi a feeñal leeru bàyyi sax dafay feeñal leeru bàyyi sax xéewal yi jëm ci moom lay wane xéewal yi jëm ci moom lay wane première taw première taw première nawet. première nawet. tey tey. nekk anniversaire bu nekk anniversaire bu Baye Soxna Tidiane. gars yi loolu dara la de. gars yi loolu dara la de. bu ngeen xalaatee. bu ngeen xalaatee de. dara la xam ne dara la. ni mu tawee. ni mu tawee nag. yàlla nekk ci moom xéewal yàlla ci moom ay xéewal amiin ak ñamu fekk ak ñamu fekk ji nekk xéewal nekk ab xéewal ci njabootam ci njabootam gi jigéen góor ak jigéen mag ak ndaw ak ndaw soxna yi ak soxna yi ak soppe yi ak soppe yi ak turandoo yi ak taalibe yi ak askan wi nitu yàlla nitu yàlla ñaar la jur ñaar rek ruux doomi ruux ruux nee na ruux ki ñëw ki ñëw joxe boppam joxe boppam di tërbiyu di tërbiyu eh, eh, eh, bëgg nekk suuf yu bëgg nekk suuf yu bëgg xam yàlla bëgg xam yàlla bëgg baax bëgg baax ànd ak sëriñ bi ci loolu ànd ak sëriñ bi ci loolu doomi doomi doomi roo waaye doomi deret doomi deret doomi deret mooy ki mu jur mooy ki mu jur rek kon doomi ruux. su gënee far bu gënee doomi deret. am. am ci nitu yàlla gi. am ci nitu yàlla gi. am ne doomu deret ci amu ko. moo tax yàcc. moo tax ku ni yàcc. doo am cër. doo am cër. Serigne na. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy nee na. boo nangoo. boo nangoo. nekkum yambar. nekkum yambar. ñu lay dimbali. soo bëggee. soo bëggee nag. nekk kilifa. nekk kilifa. di dimbale. di dimbale. Pape Hann mii. sëriñ Pape Hann mii. Aaneen gii la cosaanoo. Aaneen la ma xam baayam. ma xam baayam. mboolem Tijaan yi. mboolem Tijaan yi. baayam a ci gën a silwise. baayam a ci gën a silwise. waaye moom néewul yaa ci de. waaye moom néewul ah. yëpp xam nañ. ko. ngir alxuraan. ngir alquran loolu la ko Baye Cheikh bëggee woon moom rek la ko Baye Cheikh bëggee woon ba di ko seet ba di ko seet di ko toppatoo di ko toppatoo yàlla guddal sa fan yàlla yàlla guddal sa fan kontaan nañ bu baax kontaanal bu baax kontaan nañ bu baax kontaan nañu bu baax eh, sunu garab gii nag nee na sunu garab gii mboolem ñi ma ko bokkal mboolem ñi ma ko bokkal sëriñ aada sëriñ aada lii ma sol moo ma ko yónnee lii ma sol moo ma ko yónnee moo moo ma ko jox sëriñ aada ma ko jox te te lu lii la may jëkk a jox. nee lu lii dong la may jëkk a jox de. man lu ma waay defal ma man nag lu ma waay defal dama koy wax. jërëjëf jërëjëf. te bisu Baye Cheikh tax nga jox ma ko. nee na te bisu Baye Cheikh Ahmed Tidiane tax nga jox ma ko. yàlla na la yàlla fay. yàlla na la yàlla fay. garab gi nag nee na garab gi ñun ñi ko bokk mbooloom di fi wàcc alquran di fi wàcc alquran di defar sarax Baye Cheikh di defar sarax Baye Cheikh di ñaanal Baye Cheikh di ñaanal njabootam ñoom ñëpp ci seen kaddu ci na yàlla yal yàlla saxal leen saxal leen suturaal leen suturaal leen dimbali leen dimbali leen teg nañu cant googu teg nañu cant googu loxol ci loxol sang bi toog sang bi toog ndax moo ne ci kanam ci loolu. ndax moo ne ci kanam ca jërëjëf. sëriñ Aada sant nañ la bu baax. sant nañ la bu baax. yi rafet na. taxawaay yi rafet wetti liggéey rafet na. wetti liggéey na. yàlla yàlla fay. yàlla yàlla fay. sëñ Gora. sëñ Gora. jërëjëf. dama lay beral cant. dama lay beral ak cant. tax. xam tax. ni nga def sa mag ji. ni nga def ji. def ko sa rakk yi. def ko sa rakk yi. gis nga miraasum Baye gërëm naa sama baay Cheikh. doxale ngeen ci noo xam ne. doxale ngeen ci xam ne. ñëpp ci lañ leen xamee ñu bare ngi doon déglu. ñu bare ngi doon déglu. waaye. waaye nag li ñu dégg. li ñu dégg nag kuy soppe kontaan nga. ku soppe nag dégg nga nag. kuy noon torox nga. waaye ku def leneen nag xew na. coow amul coow amul. la góor nga defoon. la góor nga defoon. loolu rek am góor gi dafay bàyyi ko. góor gi daf fi bàyyi ko. bàyyi. Euh, juróom-ñeenti doom. bàyyi fi. bàyyi fi. Euh, juróom-ñeenti bëy. bàyyi fi juróom-benn bëy. waaye bàyyi fi juróom-benn bëy. miraas jot. miraas jot. lool. gaa yi lool. taaw bi ni leen xaaral ma dimbali leen. jox leen sama rakk yi. jox leen sama rakk yi. ku ne. ñaari béy. ñaari béy. mu jeex. mu jeex nag. gaa yi jóg bëgg dem. gaa yi jóg bëgg dem. mun ngeen sa yéene samay rak. mun leen yéene samay rak. na ma mayu béy. na ma may aw béy. ñoom juróom benn. ñoom juróom benn. ku ne jëlu béy may magam ku ne mag may ji am ñett ñett. mag ji am ñett. ñoom ñu am. ñoom ñu am. su ko defee nag. nee na kon su ko defee nag. keroog bi ñuy biraas keroog bi ñuy biraas da ngaa wax ne man soxla ma dara da ngaa wax ne man soxla ma dara lu waay soxla na wax lu waay soxla na wax sëñ Modou wax loolu sëñ Modou wax loolu sëñ Talla ni yéenay sama kilifa sëñ Talla ni yéenay sama kilifa lu ngeen wax baax na lu ngeen wax baax na sëñ sëñ Njaga ni sëñ Njaga ni man bëggoon ma joxee kaamil sax doy na man daal bëggoon ma joxoon kaamil alxuraan rek doy na bàyyi sax noonu la jabootam mel bàyyi sax noonu la jabootam mel yàlla yàlla fay leen nee na yal na leen yàlla fay. yal na yàlla dëgëral leen. yal na leen yàlla dëgëral. yal na yàlla yokk leen. yal na yàlla yokk leen. yal na yàlla suturaal leen. yal na yàlla suturaal leen. yal na yàlla aar leen. yal na yàlla aar leen. làq leen fa yàq eggul. yal na leen yàlla làq fa yàq agul. ñu ngi gërëm képp koo xam ne. ñu ngi gërëm képp koo xam ne nag. da ngaa sëtoo ci Amari Ndak. da ngaa sëtoo ci maam Ahmadou Ndak. teew nga fii. teew nga fii. gis naa fi sax Alaaji Ngay Saar. nee na gis naa fi sax Alaaji Ngay Saar. Alaaji Ngay gis naa génn. Alaaji Ngay mu gis naa génn. waaye nu may def Baye Cheikh. waaye nu may def Baye Cheikh rek. nu may def sëñ Maodo. nu may def Serigne Maodo ñoom rek. moo ko tax a teew moo ko tax a teew. yàlla ko yàlla sàmm. Eh, kon moom itam ko yàlla sàmm. ñun ñëpp di ay ndijaayam ñun ñëpp i maamam ak i maamam kenn ku solol na ay yére lamb poosam jox la teraanga lamb la ko yàlla fay. waaye yàlla ko yàlla fay. ku def lu baax. ku def lu baax. ñu ngi jaajëf ñu ngi la jërëjëf. kon ñu ngi di gërëm. kon daal ñu ngi leen di gërëm. alaaji Baye Ngom mii ma àndal. muy entrepreneur. muy entrepreneur. jeex takk ci Baye Cheikh. nee na. nee na. mi ngi leen di ñaan. mi lépp lu ngeen di liggéeyloo. lépp lu ngeen di liggéeyloo ci. xam na ni Pape Gueye entrepreneur la. xam na ni Góor a Kazaalika. waaye. waaye nag. bëgg na daal. dafa bëgg nag. ngeen xam ni. xam moom lu muy def ba liggéeyal leen. nag lu mu am ci yéen. ndax nag am nag kon dee leen ko ñaanal yàlla. kon dee leen ko ñaanal yàlla. yàlla yokk sutura. yàlla ko yàlla yokk sutura. dooli ko ndimbal. yàlla ko yàlla dooli ndimbal ay aajoom. yal na yàlla faj ay aajoom. Seydina Mohamed. Seydina Mohamed. doomi sunu sëriñ bii. doomi sunu sëriñ bii. àggale daaray baayam ji. àggale daaray baayam ji. defal na baayam loo xam ne. defal na baayam loo xam ne. wallaahi bëgg na ci wallaahi bëgg na ci. waaye ñun ay dongaam. waaye ñun ay dongaam. ñoo ko ci gën a bëgg. ñoo ko ci gën a bëgg. moo tax ñoo ngi koy sopp. moo tax ñu koy sopp. ñoo ngi koy ñaanal yàlla. ñoo ngi koy ñaanal yàlla. foofu laa yem. foofu daal laa yem. damaa damaa fees del damaa fees del li ma bëgg a wax lépp li ma bëgg a wax lépp mënu ma ko wax mënu ma koo wax ñu ngi sant nag Baye Abdou ñu ngi sant nag Baye Abdou xalifa bi xalifa bi ci teraanga bii mu def teraanga bii mu def tey yónnee teraanga yónnee na ay teraanga wëlbati ko ànd ak njabootam ñëw wax fi kàddu yu rafet seede ci Baye Cheikh ni seede ci moo doon sama sëriñ moo ma jàngal moo doon sama moo ma jàngal moo ma dalal baax moo ma dalal baax koy sant bu baax kon ñu ngi koy sant waa Mbuubeen waa Mbuubeen seen maama nga woon Samba seen maama nga leen ci bis bi leen sagal leen leen waa Ndiobène. waa Ndiobène. Euh, maam Daour Diop. maam Daour Diop. mooy moo moo doon jarbaatu Amari Ndak. bi muy dem Samba Sadio. bi muy dem Samba Sadio. moom la àndal. moom ak beneen jarbaatam. ak beneen bu ma juumul. bu ma juumul maam maa jooja Fall. maam maa jooja Fall ñoom ñaar la àndal. fekk xeex ba kokki. fekk xeex ba kokki. continuer ba am ndam lu ñëw. ba am ndam lii am tey. maam Daour dem Thiénaba. maam Daour dem Thiénaba xabaan. dégg nga. dégg nga de. Euh, maam maam maam ma jimbi aminata ñoom. maam ma jimbi aminata ñoom. ña Samba Sadio. ña Samba Sadio. ñi ndoj sëy. dabu si Amary Ndaak. dabu naan ci leer gi. ba naan ci Bamba Ñang. lu mu am. moo ko liggéey ci yoon ci yoon keroog bàyyi ma dikkee nelawee keroog ma doomu sëñ Bakary ma seen lépp baax na dama ndax ya nday Pape maamam ay dañoo dabu woon Kër Ndiaga Sarr dabu ji si ñoo bokk deret ñoo bokk deret looloo tax foofa la ñu ñoom juddoo nee ma dikkee nag maa ngi ñaan képp kuy ab jullit nga di ma ko ñaanal photo bii. photo bii. mook Baye Cheikh la. mook Baye Cheikh la. bi mu fi ñëwee. bi mu fi ñëwee. ngénte sama kër. ngénte sama kër. Baye Cheikh ñëw tudd si. Baye Cheikh ñëw mu di ziyaara. mu di ko ziyaara. ñu ànd mu ngi nii. mi ngi nii. kii moo nelaw. kii moo nelaw. nuroog bàyyi jibi sekk lool. nuroog ak suñu bàyyi jibi sekk lool. ci zahir. ci ak ci baatin nag. Amérique géemu ne. Amérique géemu ne. am na fa cena ba. am na cena ba. yóbbu na njabootam. yóbbu na fa njabootam. yóbbu na ay jarbaatam. yóbbu ay na ay doomu diyaayam. yóbbu ñeneen. waaye na ñeneen sax. nekk fa imam. nekk fa imam. di gor xam ni. di gor soo xam ni. ku ragal yàlla ku ragal yàlla la yàlla ko yàlla jégal yàlla ko yàlla jégal yàlla ko yàlla yërëm yàlla ko yàlla yërëm yaa ayda booy yaa ayda booy ñu ngi lay ñaanal ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi te wér yàlla nag fi yàgg te wér yaa nooy yaa nooy ñoo ngi lay ñaanal ñoo ngi lay ñaanal yàlla nag fi yàgg yàlla nag fi yàgg te wér ak njaboot bi ak njaboot bi ak soppe yi ak soppe yi yaa nooy yaa nooy saa yoo jógee saa yoo jógee jigéen ñi cere ba yëpp jigéen ñi cere ba yëpp ànd ak yow ànd ak yow rawatina sa waa rawatina sa waa koñ bi jikko ju rafet jooju nga yor jikko ju rafet jooju nga yor laxasu laxasu topp ci ginnaaw yaa ayda topp ci ginnaaw yaa ayda mooy laxasul sëñ laxasul bàyyi si bàyyi cheikh bàyyi cheikh ma tiida tubaarkàlla ba am ngërëmam ci fa tabaarakallaahu am ngërëmam nag te magama la jur te magam moo la jur jël ko joxal la ko jël ko jox la ko nag nga laxasu nga laxasu nag di góorgóorlu di góorgóorlu yàlla yàlla boole leen jàmm yàlla na leen yàlla boole jàmm boole leen sutura yàlla na leen yàlla boole sutura fa nga ne fële waaye fa nga nekk fële mooy fii rek mooy fii de mooy fii fee mooy fii fii mooy foofee yal na yàlla barkeel asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu min tritaati qutbul maktuum mu gaaw ndax mu jërëjëf Baye Mbaye Seck allahuma inni asaluka bi sirri zaati qutbul maktuum saydina wa tabibina wa safiina wa mawlana ahmad tijani markasil asraari al muhammadiya wa manbail anwaari al ahmadiya wa ruuxil ajaa'ib al muxtaariya wa sirril asraari wal mawaahibi bayna al baa'i wal alif wa huwa huwa billahi ya rabbaahu anta rabbu kulli shay'in wa warisuhu wa malikuhu wa malikuhu wa bixaqi sirrika al a'laa al musamma bi taaha yaasin salli wa sallim daa'iman ala fahri ahli baytihi mawlana ahmad at-tijaani sharif ixwaani wa aqilaa ilkiram uxayikum bi aska taxiya alislamiya qailan lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu di sant yàlla subhaanahu wa taala di julli si bi sallallahu alayhi wa sallam julli gam jagoo di ziyaar kilifa gi nga xamante ni mooy Baye Abdourahim Seck waaye ziyaar biñ koy ziyaar mi ngi gongi koo ci xadaram maam Ahmadou Bamba Niang ki ko fa teewal di sëriñ Bëkkëri Ñang di xalifam maam Ahmadou Bamba mu jël kàddoom démb ak tey jooyal ko ci rakkam sëriñ Xoseynu Ñang mu jooyal ko ci sëriñ Omar Ñang mu jooyal ko ci sëriñ Xasan Ñang mu jooyal ko ci sëriñ Isxaq Ñang di imam rootib mu wàcce ko ci sët yi ki ci mag di sëriñ Mbay Soxna Ñang ak le président Oustaz Alxaaji Ñang le coordonnateur Alhaji Malick Niang ak la présidente Soxna Aïda Niang ñu yóbbaale njaboot gi yépp suñ waxee ñooñu yaakaar naa njaboot gi kenn desul ñu ànd ko ak tund kër njagasaar gépp nin koy lime ci tàmbulee ca ngulleeg bul fa ak tund wa yépp kër Ibra Gueye kii doon wax léegi di yëkkati xasida yi mooy Baye Mbaye cees nga xam ni dégg ngeen mu ko waxe ci maam ya noonu la demee Baye Isaaxa bi mu jëlee kàddu gi mu wàcce ko ci sunu kaw mu ni nan ko yëkkati yëkkati gi nag mooy li gongi ko ci sëriñ Bakari muy ay ñaan ak xol bu sedd démb ci digganteem ak Baye Cheikh Ahmad Tidiane yi nga xam ni sëñ Bakari na sëñ Ibrahima Seck doon dunde ak maam Ahmadou Bamba Bamba noonu la sëriñ Bakary doon dunde ak Baye Cheikh Ahmad Tidiane lu mu am jox ko lu mu xam wax ko te du ko gëj a dégg du ko gëj a gis di ko diglu ay ndigalam ak ay tereem bi demee ba gisatul Baye Cheikh mu ni man béjjén ci bopp laa ko xam xaw ko ci fallara xaw ma ko ci yeel Baye Abdourahim moo fi nekk njaboot gi taaliba yi xarit yi ñëpp ànd leen ak man ñu dem ci ginnaaw Baye Abdourahim Seck loola la sëriñ Bakari di dund tey jii soppeem ba xaritam ba mu xool ci kanamam xool ci ginnaawam gisatu ko mu ne lu may def mu ni waaye bu ngeen geestoo da ngeen naan man maa ñàkk waaye man ñàkkuma ndax amul bis bu nit di xëy suba ñëw nuyu sëñ Bakari te lu dul waxulul wax ju jëm ci Thiénaba démb rek nee na ma dama xëy ñëw di ko nuyu si ma fekk mu forbët ma demaat ba naaju tàng ma ñëwaat fekk ko mu yeewu ma ñëw nuyu ko rek mun ma laa ilaha illallah man ko lan ma mu ne ma bàyyi seex ba léegi tàqaloowul ak man mu ne ma biig dama tëdd ba xaaj ma jël sama torsu di ko nit bay tuur ay xéewal mu ne bàyyi seex ba tey tàqalikoowul ak man mënuma tëdd ñaari fan yurul bàyyi seex daa ñëw tëdd si njoowaanam ya di ma bégal sëriñ Bëkkëri di wax loolu mu ne bàyyi seex mënuma fexe ba tàqalikoog moom ñu toog man ak sama mag bi sëñ Ousmane mu nuy nettali ba si ak mu ne man def fi mu ne nii dafa mel ni sax doyal naa dama bëgg a dem ci Baye Cheikh ma ni ko toogal ba ci kanam rek comme yow yaa ngi ni tàqaligoo ak Baye Cheikh toogal wettuñu wettuliñu ba ci kanam mu ni dootu leen wét mu ni ko defe ni Baye seex dem na da xamul li xew waaye Baye seex mi ngi fi Baye Cheikh mi ngi fi demul fenn mu ni ba boo demee cene ba boo xoolee njabootu baay Cheikh rek dangay xam ni baay seex ma nga fa mu ni boo xoolee sëñ Modou walla sëñ Góora wala sëñ baay Ndiaga wala Talla mu ni boo ci xoolee kenn rek te am li ñuy wax Basira da ngay gis ni baay Cheikh a ngi ci seen biir mu ngi wax ak ñoom ku si demoon bay juum sax dina la gindi dina la fitasu baamu dóor la mu taas gor nag buy dox di dem ba nara jàdd mu ni góor yàllaa koy doxe ginnaaw fëgg ginnaawam ni ko on oh, du foofu mu ni bàyyi seex noonu lay dundee njaboot gi bari mu ni man fii laay tëdd mu may gàggante rawatina njabootu boppam deretam mu ni kon bàyyi seex bu xewlee lu mel nii mënumaa dem naam ndax ak wérati ak mage waaye sama jëmm maa leen fay njëkk te maa leen fay mujj maa leen di njëkk ci baas ba te maa leen fay mujj te ñun gëm nañ ko ni sëñ Bakary mi ngi bokk ak ñun jataay bi zahiran gisuñu ko waaye baatinan sëñ Bakary mi ngi ci jataay bi mi ngi koy bokk ak ñun ndax taqalikowul ak Baye Cheikh benn yoon mu ni tund wee njaboot gi yëpp bi ñëwee fii sànq boo xoolee convent bi ñu fi def mosuñu ko def lu dul gàmmu cena Thiénaba lu mat 40 oto ak i kaar mosuñu koo def fenn lu dul gàmmu ba ku ko jar Baye Cheikh kan mooy Baye Cheikh mooy wàll yi wi nga xamante ni baatin baag zahir ba ak leer la te leer nag am na noo coy duggee dangay ngay lab baa nga ruy li li li feeñal loolu mooy Seydina Jibril alayhi salaam bi mu defee ci al isra wal mi'raj damay daanee sama kàddu sax sëñ njàmme waaye bi mu demee si al isra wal mi'raj bi mu demee ba génn juróom-ñaareel asamaan ba dem sidratul muntaha ba dugg baytil ma'rur ci baytil ma'mur ci aafaaku leer yi nekk foofu Seydina Jibril dafa wax yonent bi ni ko mën mënatumaa dem rasulullahi moom moo continuer di dem su ma dannaa fa ta dallaa fa kaana xaaba xaw sëy ni aw àddina sur Jibril bu jéggati woon benn paa rek day ruy si leer yàlla yi ndax baaxoowul leer googu rasulullahi rek moom la ko yàlla jagleel sëy Seex Ahmadu Bamba Ñaŋ nag ak bàyyi Seex Ahmad Tijaani boo leen gisee da nga naa la Mouhamadou Bousseyrou waxoon yonent bi ni ko anta karimun min karimin aba'uhul kurama mu nekk ca Baye Cheikh Baye Cheikh dafa tedd Baye Cheikh dafa baax Baye Cheikh bàyyi ko si ñu baax di ko baax njabootam baax baax googu mu baax nag moo tax mu ni ko Mouhamadou Bousayri wax loolu yonent bi ni ko kullu fadlin fil alamin fa min fadli rasulullahi istaaruhul fudala mu ni gars li nuy tedd ñëpp li ñuy baax baax ngëneel ya tiraanga ya wërsëg ya xam-xam ya ñoom ñépp ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam lan ko abbee lan ko abbee bàyyi seex luy tiraanga ci bàyyi seex la dëppe luy barke ci bàyyi seex la dëppe luy xéewal ci bàyyi seex la dëppe wërsëg waxi nopp xam-xam waxi nopp borom alxuraan alxuraan kay fa la ñëpp di tibbe alxuraan fa la ñëpp di tibbe dana may nettali ñu ne Baye Talla Xaar dafa waxoon ni ku lay nëbb turu yàlla rek dama jàngi alxuraan kon Baye Seex moom mooy alxuraan Baye Seex moom mooy boroom alxuraan ñëpp nungul ko ko mu di ko wax ñëpp nungul ko loolu mu di ko wax kon Baye Isaaxa ci làmmiñam laay waxee ak Serigne Mbaye soxna ñang mii dañuy bañ a guddal ndax luñ la may nga jël lépp da ngay bàddoo la te njabootu si Ahmad Bamba bu ñëwoon fii ci jant euh, tante bi ban gis ñu ñu ni Serigne Bakary Niang nuyu na leen din ko defee Baye Abdourahim léegi Baye Abdourahim ñun dañoo am nag sa njàmme lu garaaw ñu ko am bëriwul nag Baye Abdourahim danoo jóge ci Baye Seex di jooy suñuy rongoñ ferul Baye Abdourahim ñëw feral ko ci jàmm ji Baye Abdou buy jàmmante yow sax day ree bërki démb dama ne ko man Baye ma dikkee ñang lan ma tudde mun ma yow tuddee ñu la sëñ Madické man mii lan la tudde ma ñëw jox ko ñaari parfum ak la ca sëñ Bakary di boole nam ko daan def ci Baye Cheikh mu ni ma yow de si sëñ Bakary nga jóge na ko Baye Cheikh daan waxe ma ne ko nag benn parfum la daan joxe ak xaalis tey mu jox la ñaari parfum waaye bi ma ko waxee luy sabab mun ma damaa namu Baye Abdou te mënu ma wa dem Baye Abdou ni ma li fi nekkoon mi ngi fi du fi jeex te nee ko dinaa ko dolli lu mu koy dolli nag ñoom ñoo koy xam ñu bàyyi abdu ñu koy tuddee bàyyi abdu rahim rahim xam nga rahmaani rahim rahmaani ñëpp a ko bokk jullit beeg jéefar bi ñëpp a bokk ci rahmaan waaye rahim mustufa naa ne ñeex jullit yi dong ko moom ëllëg yomal xiyam ñun bàyyi abdu rahim lañu yàlla jox yàlla na bokk ak moom rahime rahimeem jooju ëllëg yomal xiyam njabootu see Ahmadou Bamba Niang lii ñu yëkkati ko teg ko ci loxo Baye Isaaxa sëriñ Bëkkërin ak sëriñ Omar Ñang mi nga xam mooy port parole bi yàlla ko yàlla wéral ñu ni Baye Isaaxa tegal ñu ko ci loxo sëriñ Moodu mi xalifa Baye Cheikh Tidiane ne nekku sëñ Bëkkërin ne na xolam sedd na yaakaaram dolleeku na te gën na leen bëgg gën na leen a jaboote wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa di ñaan ngir réew naat lool ci alquran bay Cheikh Tidiane yaay borom quran waaw sa kay gi moom saf na alquran guddee bëccëg daan nga toog di ñaan mi naat lool ci alquran sa kay gi daaneex ci alquran forom bu gis daara alquran mokkal gi daa mujj kemtaan yàlla la may lii ci alquran bay seeti jaan yaay borom quranu waa sa kay gi moom saf na alquran guddeeg ba cakraa ngi toog di ñaan ngir réew mi naat lool ci alquran sa kay gi neex ci alquran forom bu gis daara alquran mokkal gi daamu juddoon kemtaan yàlla la may lii ci alquran bay seeti jaan yaay borom quran sakay gi moom saf na alquran guddeeg bëccëg yaa ngi toog di ñaan ngir réew mi naat lool ci alquran yaa boole kër yi fi ngank diin yaa boole kër yi fi ngank diin murid tijaan xaadir ak layeen ibaadu yee kuy wuyoo ci diin ku weddi laajal ma al amiin ba Cheikh Tijaan yaay borom Qur'an aw sa gi moom saf al Qur'an guddeeg ba cëkk toog di ñaan ngir réew mi naa lool ci al Qur'an de Makka gaa mbu de maka gangi ñi sant mbu de maka gangi ñi sant mbu di bay ñu bay ahmadu mbu ak di ba abdallahi mbu sakay gi moo tax ñu dem fa Tuuba bay seeti jaan yaay borom qur'an sakay gi moom saf al qur'an guddeeg ba bëccëg yaa ngi toog di ñaan ngir réew mi naat lool ci alxuraan waaw dem Màkka gaa ngi ñi sant sa kay gi moo tax ñu dem fatu dem di bay njugaag bay Ahmadu mbu ak di pa Abdallahi mbu sa kay gi moo tax ñu dem fatu waaw ba Cheikh Tidiane yaay waaw sa moom saf na Alqur'an guddeeg ba cëkk daa ngi. tombi naa. Ah, ngir réew mi naat lool waaw defar nga Thiénaba ba fépp leer. defar nga Thiénaba ba fépp leer. yaatal fi xam-xam ba xol yi. waaw yoo. fi xam-xam ba xol yi féer ndox maa ngi ak yoon yi kenn du réer laajal ma Baye Diop nga am lu leer Baye Seex Tijaan yaay borom Qur'aan ngi sakay gi moom saf na alqur'aan guddeeg ba cak toog di ñaan ngir réew mi naat lool ci alqur'aan waaw bëggul ku ñëw toog di yàq der bëggul ku ñëw toog di yàq der waaw bëggul ku ñëw toog di yàq der waaw lor rek bëgg mooy tax mu dal di du jëw te kuy jëw mu wan la mer waat ni kii yàlla moo ko yar Baay Seex Tijaan yaay borom Qur'an bu sa kay gi moom saf al Qur'an guddeeg ba cëkk daa ngi toog di mi naat lool ci al Qur'an بسم الله الرحمن الرحيم فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا ما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا صدق الله العظيم مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nuyoo bu tedd boobu ñu ngi ci jiital sunu kilifa gu baax gi fi jóge léegi muy bàyyi sëriñ Abdourahim Seck di ko ñaanal fanu gudd gu ànd ak wér-gu-yaram moom mi nga xam ni ligne de wit bi mu teg pour liggéey ci ñett la nee na day liggéey pour xam-xam gën a yëkkatiku day liggéey pour jikko yi gën a rafet day liggéey pour bennoo gën a am Baye Abdou sumb yooyu mu teg yàlla na ko ci yàlla may ndam nuyoom boobu nag mooy yóbbaale ma ak autorité administrative yépp rek bu ko defee ma wàcc fii ci tànt bi nuyu sama mag di sama xarit ñu jaxasoo lool muy Serigne Modou mu bàyyi Cheikh Ahmed Tidiane Seck un homme qui passe inaperçu nit koo xamante ni bii waajuram yor na xilaafa fukki at ak ñaar mais mu mel ni di moom mooy taawu waajuram kon sëñ Modou chapeau yàlla na yàlla sàmm la ca aar la famille maam Madjimbi Aminata ak maam Gora Aminata ci présentation ba gàtt rek dama naan ñoom ñi ngi xamante ak maam Ahmadou Ndaak ci maam Cheikhu Amadou Ba fa lañ xamante mbuben nag amul benn xare bu mag ñi xare lu dul sunu maam yi xare na ko ñu am benn chance ci biir histoire histoire Mboubeen de bouche à oreille la ndax maam góor a Aminata ma fa jóge dafa dundu ba taawam samp kër mu dundu ba maye am caatam kon moom dafa nettali ay doomam li xew ay doomam nettali ñu ko kon Mboubeen du soxla archive pour xame suñu histoire maam Samba Sadio ku nekk nekkoon na fa mais ñaar ñu bokk ndey baay demandoo fa ah mbubbee nga koy fekk nag ci li jàpp fii ci dëkk bi ba ñu demee sama xarit bi El Hadj Papa Abdoulaye Mbubb day wax ni deret lañu ko jëndee yenn saay sax ma njàmbaas ci ak bakkan ndax yenn saay deret mën naa tuuru ca bakkan du wadd mbuubeen dañoo cotiser deret cotiser bakkan mam ma jimbi Samba Sadio la des balu dënn nag lañ ko dóor balu dënn lañ ko dóor kooku duñ ko dóor kuy arrière mam góora jol jot ñaari bal ci mâchoire bi ak ci ngaam wi mam góora Aminata mi rekk mam ma jëmbi mi ngi juddu 1823 bind leen loolu mam góora Aminata moom mooy rekk mam ma jëmbi 1823 la juddu 1933 la génn àddina xanaa kon dégg fa ñetti trois de dégg la ñetti trois ah yaa ngi dégg maam euh, Madjimbi juddu avant 1823 génn àddina 1875 ca Samba Sadio bi ñu jógee ci xare ba acte bi maam góor a jëkk a posé bi mu gisatul sëriñam bi ko woon muy maam Cheikh Amadou gisatul magam mooy dafa delluwaat Fuuta pour xool njabootu maam Cheikh Amadou nu mu tooge waaye wër njabootu mbuubeen ay at yu bari ñëw ca na ba jamonoy maam Talla Seck naa tënk histoire bi foofu ñëw nañ ci relation mbuubeen ak bàyyi Cheikh Ahmad Tidiane Seck gis nga trois yi nga dégg foofu ak cinq ak saf sàpp ci enveloppe bi indi waaw mbuubeen léppam jamono da koy firi gis nga enveloppe bi ñu indi ay 3 akub 5 non da caa saf sàpp nag ndax nee naa maam góor a date de naissance ak date bi mu génn àddina ñetti 3 nga fa 1823 la juddu génn àddina 1933 dund téeméeri at ak fukk bi mu génnee àddina maam Momar Talla Seck woo maam Daawur Diop mi mu nekkoon mbokkum jihaatam mu départ ca na ba xabbaan ñëw jullee maam góor a Aminata kon waa Ndiobène ñu leen di nuyu tur wi du ñaar benn la. mais njabootu maam Bamba Ñaŋ ñu ngi leen du nuyu aussi tur wi du ñaar benn benn famille bi la waaye ñu ne ba kilifa yaatal ñu ba jamonoy bàyyi Cheikh Ahmad Tidiane Seck nag la mbuubeen njëkk a jote billet xilaafa gi billet bi nga xam ci xilaaf yi gën a jóge dug euh, mi ngi njëkk a duggee mbuubeen ci xilaaf ak bàyyi Cheikh Ahmad Tidiane Seck foofu chiffre 3 ñëwaat fa bàyyi Cheikh 2017 dafa jox sama mag El Hadj Ndiouga Mbengue bii Màkka ñoo bokk ndey ak baay moo di waa Mbuubeen ndax yaayam Mbuub la sant ndax ñun yaa ndey bu moo ñu jur maam ma jimbi al ibnu moo ko jur maam góor Aminata moo ko jur 2018 mu jox sama nijaay El Hadj Amadou Mbuub El Hadj Amadou Mbuub bii Màkka mi ngi ni toog sama rakk yaay la ñoo bokk baay mu ni bu ñëwaatee ma dugalaat ko fa kon bàyyi waat na fa chiffre 3 ndax mébatu joxaat bi bii Màkka waa Mbuubeen la fi bàyyi Covid jaar fi bee génnul 2020 euh, daanaka rek euh, gis ngeen li ci xew lépp Baye Cheikh bëggal boppam waa Mbuubeen moo tax sëñ Modou njaboot gi ñi ngi wax ni na ngeen xam ne Baye Cheikh lebalul ku jarta lebal bu leen neexoon sax du ngeen ñu jox invitation d'honneur ndax dañoo fas yéene fu ngeen tourné da ngeen ñuy gis te loolu lay continuer bu ko defee nag euh, ñaari kàddu rek moo ma dese benn bi ci Baye Cheikh la jëm dama nekk euh, Gindiku FM El Hadj Pape Abdoulaye Mboub ni ma noo ñu mën a waxee jikkoy Baye Cheikh ci alquran man ko nan dem suratul Xaashiya yàlla ne afala yanzuruna ilal ibili kayfa xuliqat wa ilal samaai kayfa rufiat wa ilal jibaali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutixat yàlla dee ne xanaa xoolu leen ci giléem ni ko bindee giléem bu jëfandikoo woon dara jaam kenn du ko jariñoo dafa yës pour ñu jariñoo ko waa mbokk yi Baye Cheikh wàccul boppam ah wàcc na boppam wa ila samaa'i kayfa rufi'at asamaan dañoo tiim waaye yàlla na wa fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adun seen wërsëg ci kaw lay jugee àjjana ji leen dig aussi ci kaw lay jugee Baye Cheikh ni mu timme woon njaboot gi noonu la doon làmbe ab di joxe a ah, naa fa yam ñaar yooyu bañ a àggale ci ñeent yi moo tax njabootug maam ma jimi ak maam góor ni ko ko seen histoire ak relation Baye Cheikh ay trois bari na fa yàlla def bi nu duggee fi ñuy communique muy ëtt mbuubeen sunu doom sëñ Mouhamad Bachir Mbuub ubbi ko xam tey bi ñu ñëw te délégation Baye El Hadj Seexu Caane Mbuub mii xalifa mbuubeen di mag moo xam daanaka léegi mu am téeméeri at moo ñëw toog ba gis ne attanatu ko mu dem ànd nag rakam sama nijaay Taala Caane Mbuub ànd nag rakam sama nijaay Ibra Mbuub ñëwoon na ànd nag rakam sama nijaay Amadou ànd ak doomam sëñ Ibra Penda ak ñin ko àndal ñëpp moo tax famille Mboubeen débloqué enveloppe bu 333 500 xanaa kon dégg nga ñetti 3 léegi ah 333 500 5 ba nag la muy représenté mooy 1875 ja ca par hasard jubluwuñ ko ci mais loolu moo fa nekk sëñ Modou Rokhaya enveloppe bii waa Mboubeen ñoo la ko jox muy mille 300 500 di. Euh, juróom-benn fukki junni ak ah, juróom-benn fukki junni ak juróom-benn junni ak juróom-ñaar téeméer. ak xay Kër Maysa Kër Maysa. Touba Gueye Touba Gueye. garage bi nekk R100. garage clando Baye Cheikh bi de r ñoo ko tuddee garage Baye Cheikh. garage bi nekk disque canaba. garage bi nekk di arrêt bii. clando Mali. clando Mali. Jakarta Mali. Ndaama Rasman même les Benyamin. non Ndaama Rasman. Ndaama Rasman yi. waaw ñëpp ñëpp rek di yëngu fii. maternité mate waa maternité. marché. waa marché. Euh, waa gendarmerie. waa gendarmerie. waa gendarmerie. foofu nag. foofu nag. dama fi taxaw. dama fi taxaw. jaajëfal. jaajëfal. Euh, monsieur Ibrahima Faye. commandant monsieur Ibrahima Faye. commandant gendarmerie bu Thiénaba. kan commandant gendarmerie bu Thiénaba. am na taxawaay yu am solo. am na taxawaay yu am solo. leer na Pape Abdoulaye. leer na ma man. ak euh, El Hadj ak El Hadj Gora. dem nañ fa. dem nañ fa waaye yeex nañ faa dem waaye nag a am waaye taxawaay yi mu am def na ko def na ko andil nañu ay éléments andil nañu ki euh, euh, kii. Euh, garde fou yi ngeen gis garde fou yi ngeen gis ñu andi ko ñu andi ko muy barrière yi muy barrière yi moom moo ko toppatoo moo ko toppatoo ci ci taxawaay bu am solo moom ci boppam moom ci boppam moo sol tenue képp koo xam ne daal képp daal koo xam ne jàpp na ci euh, muy waa Banda ak waa euh, Maysa waa kër Maysa ak waa kër Mamour waa kër Mamour ñoom ñëpp fàttewuñ leen ñoom ñëpp fàttewuñ leen euh, macha allah monsieur Aliou Sarr monsieur Aliou Sarr ñëw na fi jaajëfal ñëw na fi jaajëfal monsieur Omar Sy Alaaji jaajëfal nañ ko jaajëfal nañ ko monsieur Abdou Gningue monsieur Abdou Gningue jaajëfal nañ ko jaajëfal le maire monsieur le maire Talla Diagne Talla nañ ko GIE Fass Diop GIE Fass Diop jaajëfal nañ nañ leen docteur Diallo docteur Diallo kazalika Pastef Thiénaba Pastef xam ni bi xam ni Moussa Ndongo moo ko jiite moo ko jiite a ak El Hadj Gora Gueye Yaxya Diop Yaxya Diop Euh, ñëw teew ak ñi ko bokkal ñëw teew professeur Souleymane Dia professeur Souleymane Dia jaajëfal nañ ko jaajëfal nañ ko euh, Serigne Modou Ndiaye Serigne Modou Ndiaye euh, dëkk Guédiawaye dëkk Guédiawaye di entrepreneur di entrepreneur taxaw na ci bis bi taxaw na ci bis bi Serigne Baye Lay Guèye Serigne Baye Lay Guèye moom tamit teewoon moom it teewoon na teewal na teewal na Serigne Idrissa Guèye Alhaji Idrissa Guèye moom tamit noonu kazalika Oustaz Pape Anne Oustaz Pape Anne jaajëfal nañ jaajëfal nañ ko Soxna Ndeye Malado Magazi Soxna Ndeye Malado Magazi moom moom xaritu Serigne Góora la xaritu Serigne Góora la Mourtala mu nekk baax. mu nekk baax. def na délégation ñëw na teew fi euh, ak ñun ci bis bi ak ñun ci bis bi. Euh, monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr monsieur Adama wax na ko sëñ Adama jot na ko jaar na ci Aminata Diaye ñu def délégation ñu def une euh, ñu ngi ñu nga xam ne dégguñu leen. ñeneen ñu déggu après ñu complété ko. rasulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayiduna muhammad alayhi salaatu sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sant nañ borom bi bu baax sant nañ borom bi bu baax di julli ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ji gudd gudd gàtt gàtt wax ji daal gudd gudd gàtt li jiitu bisub tey. ak bisub tey bii. lépp luñ fi ñaan. lépp luñ fi ñaan daal. yàlla nay muuru Mbaye Cheikh. jàmm fa mu nekk. yàlla nay mu di jàmm ci ginnaawam. sëriñ jàmm ci ginnaawam. Serigne xam nañu. xam nañu. Baye lu ko booleeg njóobeen. lu jiitu. mu nekk Serigne Thiénaba. mu bi ñu demee ba Serigne Thiénaba gi dab ko. bi ñu demee ba ko. mu gën koo couleur. tey nag. tey nag dem na. ñoo fi des. lan moo ñu war. loolu war sàmm couleur. sàmm couleur. xabaan. dama xabaan. njabootu maam Daawud. njabootu maam Njaga Diop Tafsir. njabootu maam ànd nañ ci nangul Baye Cheikh ay jikkoom ay melokaanam ci lu yàlla gërëm def na li mu ba dem jot mu dem ci anam bu rafet xew-xew xabaan te mooy gàmmu gi ak dëkkub xabaan ñëw bay Cheikh feeñ na ci taxawaay ci jëf ak ci wéttili kon sant nañ ko bu baax gërëm nañ ko bu baax li mu fi bàyyi yàlla na yàlla boole téel ñu lépp ba fa ñu bëgg a àgg ñu àgg fa bari na lu doom di am waajur waa ko liggéey te moo ñu dal moo leen dal yàlla ñu yàgg dal yàlla ñu yàlla dimbali ba ndoon li ñu am ñu xam ko te téye ko suñu fukki loxo li ci des ay sant la. aki sant la ak gërëm. ñi ngi ko bokkal. ñii mag la. ñii féete la suuf. njabootu maam Daawur Diop. njabootu maam ci ñaa ndigalul soxna Awa Diop. ci ndigalul soxna sama bàjjan mi nga xam ni. moo fi des. ci lu maam Daawur meññ. ak ci njiitu Serigne Maodo Diop. ak ci njiitu Serigne te rakk yi. di ci jukki. professeur sëriñ Diop. ñu teewal ko fi. àndoon nañu ak sëñ Maodo. toog na fi ab diir. door dellu lépp. mooy jéem a fay bor wa yàlla nañ ci yàlla dimbali ki nga xam ne ci la ñuy mujjee mooy Serigne Thiénaba Baye Cheikh Abdourahim Seck xalif général ñun ñëpp ci suufam la ñu nekk ñun ñëpp ak njabootam lañu ñu nangul ko Serigne Thiénaba am gii te warlul ko lépp loo xam ni daf ko ci jox ndam fu ñu mën a nekk ñu def si suñu kéem lay kàttan war na ko sant Diop war na ko sant Seck war na ko sant na leen itam nag diine ji daal ñëpp ko ñëpp la war a soxal du diine sëñ Thiénaba rek kon li ñuy wax di ko fàtte suñ bopp di ko fàttali bokki njóobeen yi fa maam ya taxawoon bàyyi taxaw fa nañ fa jéem a taxaw nañu jéem laax de xam naa la maam ya manoon bàyyi manoon ko duñ ko man waaye nañ fa taxaw sant nañu bu baax gërëm nañu bu baax jotaay bi dafa xaw a yàgg te fi ñu lu koy gën a guddal gënul waaye daal xam nañ ci la ñu bokk boole nañu ci te taxaw nañ ci oh. sant nañu bu baax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa lii nag gi njaboot gi comme ni sëñ Mbeng doon la sànq. comme ni bu ñu ko fayoon borom. Baye Cheikh bu ñu ko fayoon borom. dara. du ngeen manqué dara. fu alalam nekk soxla ñëw dugal na ko fa fu soxlaam jëmm mën ko régler dem na fa ñoo ci barkee loolu yi yàlla na yàlla barkee lépp yàgg yàlla ko yàgg taxaw ñu yàgg leen fee fekk te lépp nag yàlla ànd ak ngërëmu suñu borom waaleykum salaam wa xam naa ni. Euh, dañ lim sànq. nee na dañoo lim sànq. première étape première étape. ñëwaat ci deuxième étape ñëwaat ci deuxième étape. vision 3 nee na vision 3T vision ay ndaw lañ ay ndaw lañ. fi ñëw nañ fi. ñoom tam participer ñoo participer. jeunesse su Thiénaba euh, t-shirt yi. t-shirt yi. te set setal ba ñoom ñëpp ñëw nañ fi ñoom ñëpp ñëw nañ fi. jàpp ci bis bi jàpp ci bis bi. soldaaru maam Ahmadou soldaaru maam Ahmadou Ndak. ca Fass ca Fass. ñoom tamit jàpp it jàpp nañ ci bis bi. waa Fass Koffi ci ba daayira ba. ñoom tam am nañ taxawaay mbay ñing mbay ñing euh, wax naa waa kër Mamour wax naa waa kër Mamour ci doon dugg da ci doon dugg waaye moom tam taxawaayam waaye moom it taxawaayam dafa ràññeeku dafa ràññeeku alaaji ngañ demba saar alaaji ngañ dama koy bàyyi daam jóob alaaji daam sëriñ góor a nee sëriñ góor a nee na jaajëfal na ko jaajëfal na ko taxawaay yi taxawaay yi sëriñ góor a a bi nekk Thiès bi nekk Thiès ñoom tamit ñoom taxawaay am nañu taxawaay. Euh, Mamadou Diallo Mamadou Diallo. coordonnateur coordonnateur. maison de l'outil maison de l'outil. maam Ahmadou Dak Seck xamee ni bi nga xam ni. macha allah macha euh, moom ñëw nañ tam teew. moom ñëw nañ teew. teewal teewal. sëñ Souleymane sëñ Souleymane. daf maa woo léegi daf maa woo léegi. jox ma vingt mille jox ma vingt mille. ni ma entrepreneur am. ni ma entrepreneur am. entrepreneur Baye Ngom entrepreneur Baye Ngom mii. xam naa dama ko tuddee l'entrepreneur de Mame Ahmadou. dama naan dama ko tuddee en l'entrepreneur de moo yëkkati ñeenti junni barkeeloo ko ci bis bi barkeeloo ko ci bis bi. kon bismillah mu gunge sëñ Souley bokk moom dama lay bàyyi dama lay bàyyi bu ma bàyyi yi ah mu continuer kàddu yi kon ñu jël kàddu gi jox ko Serigne Pape Seck Mourtada ma dikkee wa sadiqul masduq مثله هو القاتم المختار من رسل ربه هو الشافع الممدوح من بين حزبه من الله في الطول الحفيد لخلده والماجد الباني أصول diini wal islaami waaxan li majdihi moom yonent bi huwa saakirul mahmuudu qabla bariyatin huwa saakirul mahmuudu fi yawmi ba'sihi Mamadou Lamine yaay rasuulu rabbul aalamiin wa xaayidul qurril muajjaliin yow sayyiduna Muhammadu salli ala al-anbiyaa wal mursaliin moom doy raufun bil mu'miniin te mooy safiun bil muznibiin wala di kaana nabiyyan wa aadamu bayna al-maa'i wa tiini wa huwa alladi ursila kaaffatan ila al-xalqi ajma'iin كما قال subhanahu wa ta'ala fi kitabin mubin ma kana muhammadun ala ahlin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin sahibil awdil mawrudi والمقام المحمود واللواء ينقوب muhammad bu ëllëgee yaa yore safaatul kubra bi yadihi yawmil maw'udi mooy imaamun haasimiyun wa rasulun qurasiyun mooy nabiyun mustawa haramiyun makiyun madaniyun aslu adamiyun far'u nidaariyun nasabuhu ibrahimiyun xalbuhu rahmaniyun sadruhu nuraniyun lisanuhu arabiyun wa buqaatuhu ijaziyun sayyiduna muhammad ya rasulu saqalayni la bi tawil daib wala bi qasiri daani mustawa abyadul lawni musharrabun bil khamrati aqna al anfi السجل حاتبين سسل القدمين زبل زراع المستوى مدور الوجه خامة بين الخامتين كن هنيئا لنا منه الشفاعة في غد المستوى يا إرم جابي ينال الرداء كل عبد موعد علاقة في ذنب أو أنت مدي من يخ suñuy bàkkaar jaraa'iruna tumha bi jaa'i Muhammad isaa suya mahbubu jaazal mubarraju mu mel ni kaddu gi mat na macha allah Baay Seex Ahmad Tijaan yi wax ci moom dafay yomb li tax mu yomb moo di jàngal alquran rek li yaa Isa waxoon ci yont yàlla Muhammad biñ ko laajee kan mooy Moustapha dañu jàngal alquran lu yàlla tere bàyyi na ko yàlla digle def na ko mooy Baye Cheikh Ahmed Tidiane macha allah sëriñ Mouhamadou wax nii kaddu gi mat na ay baayam wax nan maamam wax na magi boppam. di sëriñ Mouhamed Seck mii war a jël kaddu gi tëj jotaay bi jël na kaddoom dugal ci biir kaddoom sëriñ Mouhamed Seck genn kaddu rek la ci wax xanaa kay ñoom ñii di ay magam li mu xam ñoo ko gën a xam muy la xam na ni bay sama tijaan yi ak way juróom sëriñ ma dikkee doom ak baay la waaye benn jëmm la lu ko waral maasallaahu amu xarit am ak mbokk xam nga ni xarit doy na ci yor soxna yoree rakkam yar ko ba wóolu jukkoom ni diw koy yor loolu doy na tegtal ci ñun njaboot ba Cheikh Tidiane ñun ñu tuuti nii mën a seeda ci moom lu rëy ngir yàlla ak jëfandikoo gi mu jëfandikoo alquran moo tax ma waxoon ko ni ko bàyyi cheikh alaaji taala siise moo la layal mu ne ma ci naka ma ne ko ëpp na ñaar fukki at booba xalaatul nii di nga toog jëfandikoo yu maam amari ndax mu ne kilifa gaaf gi ci gën mooy lawet sàkk mu la gaaf gi gën ci gaafu kilifa mooy lawet te Baye Cheikh Ahmad Tidiane yi xilaafaam jëpp fas woowu la war ba ñu ñëpp ràññee ko ci bokki jullit yi bokki talibi yi kon ñu déglu tuuti ndax masàllaa uddina wax nii ginnaaw la waay koo ko wakkal muy wóolu fa wewu boppam moo tax Baye Alfayda wax ma ni ma masàllaa sëriñ Mouhamadou Mourtada na yëkkati kàddu sant sant sant magam sant magam bu santee magam ba noppi ñaanal ay yaayam di ci biir kër gi ak bajjenam di ci biir kër gi ñaanal ay jigéenam wàññi ko ñaanal ay soxnaam masallah te it xam ngeen ni ifaadati ka min ka ilay bokki jullit yi bokk taalibe sëriñ Mouhamadou Mourtala ñu ngi nuyu des saafara. ñu ngi nuyu mbokk yi jotaay bi bu baax. ñu ngi nuyu mbokk yi toogee jotaay bi bu baax. góor jigéen mag ak ndaw. góor jigéen mag ak ku ndawee. di dugal ci siyaar bi. di dugal ci siyaar bi nag. ñu ngi jiital ci siyaar bi. ñu ngi jiital ci siyaar bi nag. xalif général di Thiénaba. xalif général di Thiénaba waaye Abdoulaye. ñu ngi koy nuyu ñu ngi koy siyaar. ñu ngi koy nuyu ñu ngi koy siyaar bu baax. wàccuwaayam. jox ko jox wàccuwaay di ko yàlla jox. waaw te di ko yàlla. di ko ci ñaanal yàlla. lii nga xam ne moom la yoreel. lii nga xam ne ni moom lañuy ñu yoreel ñu njaboot te mu jógee ci magam ju baax ji. te mu jógee ci magam ju baax ji ñu tàntal tey. yàlla na ko yor lu yàgg yàgg yàgg. ndam lu ci ay kilifaam. ndam lu ci kilifaam yi amoon. yàlla mu yàlla jox ko ndam lu ko. ndax loolu mooy bëgg-bëgg njaboot yi te it mooy ndam ci njaboot lu mu gën a baax rek nu mu gën a baax nu mu gën a rafet nu mu gën a rafet gànnaay noonu lañ ko bëggee noonu lañ ko bëggee ñu koy jox wàccuwaayam jox nañ ko wàccuwaayam bu baax ñu ko bokkal ñëpp ak ñu bokkal wàccuwaay boobu ñëpp tabaarakallah fa tabaarakallahu kaddu yi nag kaddu yi nag ah, kaddu teraanga rek la kaddu teraanga la yaakaar naa ni kàddu yi jiitu. waaye yaakaar naa kàddu yi jiitu. mat na sëkk. mat na sëkk ay kàddu. te itam képp ku bëgg a jariñu. tey ku bëgg a jariñu. yaakaar naa ni man nga cee jariñu. man ngaa jariñu ci kàddu yi jiitu. waaye nag teraanga moom. waaye teraanga. al karaamatu laa turaddu. al karaamatu laa turaddu. teraanga moom ak nu mu mën a. teraanga ak nu mu mën a toll ak nu mu mën a. teraanga rek la tudd. teraanga lay tudd. yow mi ñu koy joxe. yow mi ñu koy joxe. waaw ah, war ngaa góorgóorlu. war nga góorgóorlu. waaw ah, ba ka la jox teraanga ja. ba ki la jox teraanga yi. loo man ci terloo ko. loo man ci terloo teraanga yi. nga terloo ko. nga terloo ko. ndax loolu mooy bëgg-bëgg. ndax loolu mooy bëgg-bëgg yi ba jox. loolu mooy mbégte. loolu mooy mbégte. ñi nga xam ne dañ laa bëgg a dégg git. ñi nga xam ne bëgg na laa dégg git. fa tabaarakallah. fa tabaarakallah. waaw ah, ñooñu it. ñooñu it. yaakaar naa ni. yaakaar naa ni. nga yëkkati sa kaddu. nga yëkkati kaddu. ak lu mu gàttu gàtt. ak dégg ko. ñu dégg kaddu yi. di ko bànneexu. di ko bànneexu. loolu yaakaar naa wàññiwul dara. loolu wàññiwul dara. kon ñu ngi sant yàlla bu baax. ci bis bii nga ni. ci bis bii nga xam ni. bisu alquran la. bisu alquran la. ndax bàyyi am cheikh. ndax bàyyi cheikh. yàlla yàlla yokk leeram. yàlla leeram. yaakaar naa ni bu ñu nee Baye Cheikh Tidiane. yaakaar naa bu ñu nee Baye Cheikh Tidiane. kenn du ca teg dara dara dara. kenn amul lu mu cay teg. lu dul borom alquran. loolu borom alquran. kon loolu mooy aw dàkkantal. loolu mooy dàkkantal. muy aw dàkkantal wu rafet. muy dàkkantal wu rafet. muy dàkkantal woo xam ni. muy dàkkantal woo xam ni. jëfe na ko. jëfe na ko. dund na ko. bind na ko dund na ko. ba ñëpp xam ko ci. ba ñëpp xam ko ci moom. kenn koo xam ni. amul kenn koo xam ni. dàkkantal woowu. woowu dàkkantal. nanguloo ko bàyyi seex. nanguloo ko bàyyi seex. loolu nag ndimbalal yàlla. loolu ndimbalal yàlla. kon yaakaar naa ni bu ñu dajee tey. kon bu ñu toogee tey. jëmm ju tol noonu. jëmm ju nga xam ne daan dund alquran. nga xam ne daan dund alquran. qualité yi newoon ci moom. ak qualité yi nekkoon ci moom. yëpp di ay jikko yu rafet. yëpp nekk di koy yiw. mbaax gaag. mbaax ga. tabe gaag. tab ga. woyof gaag. woyof ga. nangoo sonn ci yittey doomu aadama. nangoo sonn ci yittey doomu aadama. ku toog ci jotaay bàyyi seex. ku toog ci jotaay bàyyi seex. boo fa jógee. soo fa jógee. da ngay kontaan. am mbégte. da ngay am kontante. da ngay am kontante. da ngay bég. da ngay bég. waaye jóge fa mer. waaye jógee ci bàyyi Seex mer. mosuma koo xam. man de mosuma nitu jàmm la. kon bàyyi Seex la. nit la koo xam ne. nit la ëmbal jàmm. ñëpp la ëmbal jàmm. ñëpp la yéene jàmm. ñëpp mel noonu nag. jëmm mu dem. fu mu la ko yàlla def. jàmm la ko yàlla def. tey ji. kon suñu boppoo ko ñaanal ci téereb ñaanal ci téere yàlla muy téere boo xam ne. muy téere boo xam ne. bëggoon. da koo bëggoon. daan ko dund. daan ko dund. daan wax naan. daan wax naan. lamb ju ma waay woo. lamb ju ma woo de. bu dee lambi alquran. ñeme naa caa. ñeme kon yaakaar naa ni fa tabaaraka. kon yaakaar naa fa tabaaraka. luñ ko ci ñaanal. lépp luñ ko ci ñaanal. yàlla dana ko nangu. kon ñu ñaan yàlla fii mu tëdd. ñaan yàlla fii mu na ko alquran wettali yàlla na ko alquran wettali yàlla na ko alquran leeral yàlla na ko alquran leeral yàlla na ko yàlla boole ca ña nga xam ni yàlla yàlla boole ko ca ña nga xam ni bu ëllëgee ëllëg yonent bi alayhi salaatu wasalaam alayhi salaatu wasalaam nee na yuqaalu li saahibi alqurani nee na yuqaalu li saahibi alqurani bu ëllëgee dañuy wax borom alquran ëllëg dañuy wax borom alquran yi te mooy ki mokk alquran te mooy ki mokk alquran wala nga am loo ca mokkal wala nga am sax loo ci mokkal jëfe àjjana buy dugg àjjana ko yéegal ci escalier yi dañ naan di tari la nga mokk di tari la ca mbokkal la ca mbokkal fa mu yem fa mu yem sa kër ci àjjana sa fa lay yem yaakaar naa ni bu ëllëgee. kon yaakaar naa ëllëg. bàyyi seex. bàyyi seex ma tiya. buñ ko nee dugal àjjana. buñ nee ko dugal àjjana. yéegal ci askale yi. yéegal ci askale yi. di jàng. di jàng. fa nga yem. ba fa nga yem. fa la sa kër di yem. fa la sa kër di yem. yaakaar naa ni. yaakaar naa ni. ah ñay am dëkku dëkkuwaay yu kawe. ñay am dëkkuwaay yu kawe yow. ca la ko yàlla yi boole. ca la ko yàlla yi boole. loolu nag jar naa sant yàlla loolu jar naa sant yàlla. kilifa gu mel noonu. kilifa gu mel noonu. bu la ko yàlla defee. bu la ko yàlla joxe. war ngaa sant yàlla war nga sant yàlla war nga koo santale yàlla war nga koo santale yàlla bu baax wa tabaarakallah tabaarakallah kon ñu ngi koy sant bu baax kon ñu ngi koy sant bu baax ñu ngi koy jaajëfal bu baax di ko jaajëfal bu baax ñu ngi koy ñaanal bu baax di ko ñaanal bu baax ndax lii mu ñu bàyyil ndax lii mu ñu bàyyil ah, wax dëgg wax dëgg ab sag la boo xam ne sag la boo xam ne ñun ñëpp ñun ñëpp dañ ciy tiitoo dañ ciy tiitoo te it te it sag boobu sag boobu bu sag boo xam ne di sag boo xam ne ci ak njabootam rek lay ak njabootam rek lay déedéet sagub diina ji la sagub tariixa bi sagub àdduna bépp kon ñu ngi koy ñaanal yàlla fee mu tëdd wa tabaarakallah lépp luy teraanga na ko yàlla def jamono gi mu sàmm leen yal na leen yal yiir leen yaakaar ji seen baay amoon. ba yaakaar ji seen baay amoon ci ñoom. baba jàng jotee mu jàngal leen. baba jàng jotee mu jàngal leen. bu yor jotee mu yar leen. bu yor jotee mu yar leen. xamal leen addina. xamal leen addina. xamal leen ni ñuy nekk nit ñi. xamal leen ni ñuy nekk nit ñi baax na. ba kenn ku nekk. ba kenn ku nekk ci moom. foo ne. foo ne. man faa ne. man faa ne. te kenn du la jébbi. te kenn du la jébbi. fa tabaarakallah. fa tabaarakallah. ah njaboot googu it. njaboot googu. yàlla yàlla sàmm leen. yàlla yàlla sàmm leen. ah maa ngi nuyu sama yaay Ayda Boy. maa ngi nuyu sama yaay Ayda Boy. maa ngi koy siyaar siyaare bu baax di ko siyaare bu baax. maa ngi koy jaajëfal bu baax di ko ñaanal yàlla di ko ñaanal yàlla. moom ak sama bàjjan nooy. moom ak sama bàjjan nooy fekk. ñi nga xam ne ñoo seqoon bàyyi seet. kontaan. ñëpp kontaan. yàlla yàlla doon leen seen taxawaay. yàggal seen taxawaay. njaboot gi ñu fi bàyyi. njaboot gi ñu fi bàyyi. yàlla di sunu mag. baay. di sunu baay. waaye bàyyi ci sunu lépp. di mu wuutu. ko wuutu lu yàgg. yàlla na ko mel ni sëñ Góora. ku mel ni sëñ Góora bu baax. jigéen ñi. ak mu commencé ko ci fa tabarakallahu soxna nooy. commencé suuf. nañ yàgg ci ginnaaw. yàlla mu yàgg leen a mu yàgg leen jiite. yàlla mën na ko yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla ah diggante sëñ ma dikkee bàyyi si ànd diggante sëñ ma dikkee ak bàyyi si ànd ya ginnaaw bi mbokk gi wéyee ginnaaw bi mbokk gi wéyee dañoo amoon relation boo xam ne dañoo amoon nag ñoom ñaar relation boo xam ne relation bu particulier relation particulier alaaxa xaasa lañu amoon. loolu ñuy wax alaaxa. loolu ñuy wax alaaxa. xaasa. moom la leen yàlla defaloon si. moom la yàlla defaloon si yéen jël. xaritooga. ak bàyyi xel ga. ak safooga. loolu ku ne xamoon na diggante sama baay. ak diggante baay Seex. bu ñu mosaan di diggante téléphone. mën nañ fa yàgg lool. kenn ci sa morom. kenn ci moom ñaar. ba yàkkamtee bàyyi. ba yàkkamtee bàyyi. bu ñu mosaa dajee. bu ñu mosaa jotaay. seenub jotaay. noonu lay ndax ñun sunuy nopp. ndax ñun sunuy yaay. sunu yaay yi. Baye Cheikh Tidiane. ko jëlee mbos. moo ko jëlee ba andi ko ci ndigalal mag ñi. tabarakallah te sama yaay magam moo ne fii ci kër meññ ñoom góor tabarakallah ah, sama rak wala sunu caat mi ngi fii ci kër gi ñu jox ko baay jaga ñoom it seen rak soxna aminta amay fee ci canaba ka ñu dénk ma kon loolu lépp tax na diggante bi gën a a rafet gën a jaxasoo te noonu la ko bàyyi seex gënoon a bëggee Moussa toog ak Baye Cheikh Baye Alpha mi juñu na ko ci suba xam nga lan la ñuy dénk na ngeen nekk benn na ngeen ànd na ngeen bàyyante bu ma sañoon kenn du leen gën lu ne mu dénkuñu ko kon yaakaar naa ni ndénkaan yooyu luñ ci gën a góorgóor luñ ko gën a bàyyi xel luñ ko gën a sàmm muy bëgg-bëgg Baye Cheikh ñu ngi ciy góorgóorlu nag ñu ngi yàlla mi nga xam ni ñi ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moo mën a sàmm yàlla nañ ko yàlla sàmm kontaan nañ ko baax njaboot gi daal nii ñuy doxalee ak ñu fi ñu teg seen tànk ñun ñëpp suñu xel dal na ci ndax ñi nga xam ne ñoo doon seen niti baay xëy bu ñu ci kenn fa tabaarakallah xëy wi laata muy ñëw kenn ku nekk fekk nañ la fa nga dëkk jox la leetar waxtaan ak yow sàkku ci yow ñaan ba ci man mii délégation bi sëñ sëñ Moodu ñoom yabaloon délégation ba am solo la te man xam nañ ñi gàmm gi bu ñu ma yëgalee danaa ñëw bu ñu ma yëgalu danaa ñëw ndax dama cee bokk waaye nag cërub sëñ ma dikkee moom lañ ma doon seet kon kontaan nañ ci yal na kontaan lii daal yal na jëm kanam fa tabaarakallah yàlla boole taxaw yàlla yàlla boole taxaw yàlla yàlla boole dimbali yàlla yàlla boole dimbali yàlla xiil ci boppam yàlla yàlla xiil ci boppam ba ñu ñëpp ba ñu ñëpp ëllëg ak si boo ko teer ci kanamu mag ñi am ngërëmal yàlla lii rek am solo mbokk daal nu gën a rafet noonu la ko yàlla gën a ndax kenn moomu kenn moomu ko kenn moomu ko kenn moomu ko ko kenn ko gën a sàmm gën la ko rafetal gën cee sonn waaye keneen ku defe neneen boo ko xamee ak boo ko xamul yow moom seqoog yàlla dara te lii moom bokk na ci li nga xam ne day rafetal ak mbokk leen ñu bokk toog ñaanal Baye Cheikh wa tabaarakallaahu jàkkaarloo kenn ku nekk di xool sa morom bëti yërmande bëti cofeel teraanga joo am nga def ko ci bis bi danga ko seqal ñaanal la ñaanal la. gën a ko rafet. yàlla na jëm kanam. yàlla na jëm kanam. wasalaamaaleykum. macha mu ngi toog ànd ak ñun. mu ngi toog ànd ak ñun. ñu ngi koy jaajëfal ak cër cër bi mu am ci dëkk ñu ngi koy jaajëfal ak cër bi mu am ci bis bi. Uh, Euh, muy représentant PDS. muy représentant PDS fii ci Thiénaba fii ci Thiénaba ci commune bi. di leen jaajëfal bu baax di leen jaajëfal. Euh, famille bi di famille Baye Ibou Ndiaye. famille bi di Baye famille Baye Ibrahima Ndiaye. ñoom tam ñu ngi leen di jaajëfal ñu ngi leen di jaajëfal. njabootu maam Toutaan. njabootu maam Toutaan Seck. Serigne Ndiaga Seck Makhtar Serigne Ndiaga Makhtar Seck. di imam ci jàkk ji. moom imam ci suñu wettal la moom suñu wettal la. waaye mu ngi nii ànd ak ñun boobu la waaye mu nii ànd xam nga set. gëj nañ ci cérémonie yoo xam ne. gëj nañoo gis cérémonie yoo xam ne. diire bu mu ci toog. diire bi mu ci toog. mu toog ci cérémonie. mu toog ci cérémonie. loolu gëj na. loolu gëj na. kon nag kon am na lu xew. kon am ko. waaw taxawaay. waaye am solo. bind livre bu am solo. bind livre bu euh, ko Baye Cheikh Ahmed ko ci xilaafa Baye Cheikh Ahmed Tidiane. tuddee ko Baye Cheikh. tuddee ko Baye Cheikh Ahmed Tidiane. le bâtisseur le bâtisseur. Euh, mu ngi koy euh, corriger. mi ngi koy am ci tuuti yim ci. ndax ndax baat boobu la utiliser bi muy euh, a a dolli rek 2018 la ko bindoon ndax 2018 nag la ko bindoon te Baye Cheikh 2020 mu defar euh, ngi leen di jaajëfal ñu ngi leen di jaajëfal waaye Serigne Modou nee na Serigne Modou nee mu ngi jaajëfal Baye saa Diop mu ngi jaajëfal Baye Issa Diop ak yaayam yaa Ana ak yaayam yaa Ana yaa Ana Seck yaa Ana Seck ci taxawaayu démb yi ci taxawaayu démb yi ak taxawaayu tey ak taxawaayu tey euh, njaboot Ahmed Diagne Mouhamed Diagne Mouhamed Diagne bu soxna Ndeye Fatou Gueye Mouhamed Diagne bu soxna Ndeye Fatou Gueye ak ay rakam ak rakam waaye ak soxna Ndeye Fatou Gueye ak soxna Ndeye Fatou ci boppam soxna Amina soxna Amina ak soxna jaal ak soxna Diall na màgget soxna Maguette njabootu Baye Talla Gueye yëpp njabootu Baye Talla Gueye jaajëf googu jaajëf googu ci El Hadj Pape Mor la koy teg ci mu séddoo ko El daaw Daouda Thioune mu séddoo ko Serigne jaajëf ji euh, wéttal bi am na solo wéttal bi am na solo gunge bi am na solo gunge bi am na solo conseil ci suuf am na solo conseil ci suuf am na bi am na solo jàppale gi tamit am na solo. Daouda Wade. Daouda Wade. moom tamit ñu ngi koy jaajëfal. moom it ñu ngi koy jaajëfal. Serigne Bamba ñu ngi koy jaajëfal. ñu ngi koy jaajëfal. Serigne Maamari Seck. Serigne Maamari Seck Mbaye Boubou. ñu ngi koy jaajëfal. ñu ngi koy jaajëfal. jabootu maam Ngusaan maa maam maa jooja Boubou. waaye ñu ngi jël jaajëf. ñu ngi jël jaajëf yëpp. ko ci loxo El Hadj Pape Abdoulaye Mbow. teg ko ci loxo El Hadj Pape Abdoulaye Mbow. yaakaar naa ni. yaakaar naa ni. waa këram. toog nañ ay fan. toog nañ ay fan. duñ ko gis. duñu ko gis. ndax programme bi. ndax gàmmu gi. guddi. guddi ak bëccëg. ak bëccëg. liggéey na ci liggéey bu am solo. liggéey bu rëy euh, njaboot gi nee njaboot gi nee temps bi a gàtt temps bi gàtt rek wax lu gudd ci yow waaye war nañoo wax lu gudd ci yow ñu ngi lay jaajëfal ñu ngi lay nag nii sëriñ Modou nii kaddu yii kaddu yii nga xam ne sëriñ Pape Seck moom la yëkkati nga xam ne sëriñ Pape moom la yëkkati da koy delloo daf koy delloo fa mu nekkoon démb fa mu nekkoon démb ndax yàgg na ndax yàgg na euh, Baye Cheikh Baye Cheikh kilifa ñëw wax ci kanamam kilifa ñëw wax ci kanamam mu ni Baye Diop mu ni Baye Diop tontul tontul kon sëriñ Modou nee na kon sëriñ Modou nee na nga